douteux on sait ce qu'il veut xam nañ li bëgg mais c'est la politique des petits pas des petits pas depuis 2000 entre du ma def finalement ni oui ni non finalement dañ koy yóbbu conseil constitutionnel finalement nañu dem dinañ gañe et cetera xam nga monsieur Dieng li mu wax léegi dafa doy waar euh, un état est par des principes yoo xam ni ay textes ñoo ko consacré et parmi les textes et les critères yi mu indi l'intérêt du peuple nekku ci pour se déclarer candidat loolu du critère ça n'existe nulle part ou il peut juridiquement ou il peut pas mais je vais me présenter parce que ça dépend de l'intérêt selon l'intérêt du peuple et l'intérêt du peuple bien entendu se ramenant à l'intérêt de l'APR et de ses membres loolu c'est pas c'est pas c'est pas sérieux ça fait pas sérieux affaire u mandat bi c'est très clair pourtant vingt cinq juin vingt trois mars euh, vingt la ñuy célébrer anniversaire am. dans hors la sujet hein, parce qu'on ne parle la dans la douleur. la question c'est pas ça. <laughs> dans ñu jàppoon ni. on parle de candidature oui. c'est un passé boo xam ni duñ ko dundaat. malheureusement li ñu defoon ni c'était derrière nous c'est devant nous avec peut-être des proportions encore beaucoup plus importantes ñu bëgg a teg. la question du mandat dafa xaw a doy waar parce que mhm. euh, dafa mel ni le conseil constitutionnel waxul et ils veulent prendre exemple sur des situations totalement différentes nee naa leen déjà le cas Abdoulaye Wade conseil constitutionnel daf cee wax en 2012 bokkul ak situation Macky Sall Abdoulaye Wade conseil constitutionnel lenn la wax dañ ko fal sous le régime de la constitution de 1963 nee na bi ngeen koy fal constitution bi amul limitation de mandat 1963 la ba pare mu am mandat wu sept ans ngeen def révision constitutionnelle bi euh, nouvelle constitution en 2001 ngeen bind ci ni le président day continuer mandat nee na ngeen yokk ni sept ans lay def déjà donc moom war na leen ni c'est une nouvelle constitution ça veut dire un nouvel état des choses sur le plan juridique nouvelle constitution bokkul moom li liñ ko fal constitution bu yàgg la donc constitution boobu bokkul ci déconte bi loolu la con loolu la conseil constitutionnel wax donc kaawu Ablaye Wade ak kaawu Abdou euh, Macky Sall bokkul. Mhm. bon kaawu Macky Sall qu'a dit le conseil constitutionnel ñoom benn phrase lañ bëgg a jël cette révision est hors de portée du mandat le moo hors de portée lañ comprendrewul wala ils le font exprès. comment le comprendre. voilà conseil constitutionnel dafa ni président Macky Sall da nga ni da nga ma poser question. déjà avis la woon na leer avis la woon euh, parce que bu dul avis dina graaw trop ci ñoom parce que am na lu mu leen sant te defuñu ko bu dul avis rek mooy wane ni sa constitution bi ci boppam dafa nul parce que am na loo xam ni ci biir avis bi da leen ko sant ni leen lii defee leen ko nii wala lii binde leen ko nii te defuñu ko donc ça veut dire que c'était pas une décision obligatoire bref mu ne ko 2008 mhm. boo xoolee kaaw Ablaye Wade le mot rétroactivité la ñëpp doon wax rétroactivité rétroactivité boo liiree décision de euh, euh avis 2016 bi. Mm -hmm. le mot rétroactivité nekku ci. ñaari principe le conseil constitutionnel évoque invoqué le principe de la de sécurité. Mm principe de sécurité. et principe de stabilité des institutions dafa ni. président ab Macky xam nga lan moo indi quinquennat juróomi at juróom-ñaari at ci mandat bi ci ci constitution bi ab Ablaye Wade moo toog ba 2008 bi ñu ko falee 2007 mu woo ay député am majorité jaar assemblée ni désormais le mandat de passe de cinq à sept ans mu bind ci suuf ni cette augmentation ne s'applique pas au mandat en cours noteel bien li may wax nee na yow nga ñëw 2012 ni yow yokkoo da ngay wàññi ne s'applique pas au mandat en cours mu ne gis nga bu ma leen bàyyee su ma la mayee nga yokk nga wàññi sa mandat ba pare ni il s'applique en cours ëllëg kenn dina yokk mandam jeex. mu yokk ko mu yokk ko ni il s'applique en cours du ma ko ko mën a tere. donc ça c'était phrase boobu la ni mooy hors de porté de la révision mu ne désormais. Mm-hmm. pour sur des raisons principe de sécurité juridique et de stabilité des institutions képp koo xam ni fal nañ la une situation connue. bala nga dindeeti loolu waxu mandat en damay bañ ëllëg kenn ñëw yokk duma ko ko mën tere xam nga lu tax dangaa wàññi woon sa mandat en mm. su ma la bàyyee nga wàññi mandat en suba ku ñëw yokk mandat en cours duma ko ko mën tere. ñoom nag nee nañ loolu égal interdiction de troisième mandat dafa dugg ci mandat en boobu. ce qui est une hérésie parce que wax naa la signification wu phrase boobu sa n'est pas une question de rétroactivité soo liiree avis bi ba mu jeex le mot rétroactivité nekku ci newul Macky Sall dama laa tere nga wàññi sa mandat parce que du appliqué woog dugg na fi dafa ni ko déedéet waxu en boobu laay bañ Ablaye Wade def na ko yokk mandat bi yow mhm. nga bëgg ko def wàññi suba bu nit ñëwee wàññi yokk mbàyyi ba mandat jeex deuxième mu def ñaari quinquennat ba dernier bi mu bàyyi ba quatre ans mu ne léegi le mandat est de huit ans ou de neuf ans et il s'applique au mandat en cours day continuer mandat très bien léegi nag une fois que mhm. réglé nañ la question juridique oui au-delà de promesse bu mu amoon ndax euh, conseil constitutionnel wax naa la il s'appuie sur deux principes sécurité et stabilité des institutions est-ce que troisième candidature bi day assurer la stabilité des institutions C'est la question. Est-ce que candidature bi day assurer la sécurité juridique dans ce pays est-ce que dëkk bi bu ñu yëngalee candidature dafay am jàmm wala du am jàmm kon la conseil constitutionnel waxoon yëpp ma ngay ñëw léegi nag président Macky Sall il a un souci wax naa ko fii. lequel ban souci. bis bu nee day nekk candidat. oui il le sait pertinemment parce que 2019 débat bi amul woon ça veut dire que tout le monde était convaincu xamoon nañ ni il devait le faire il pouvait le faire. tey bu toogee bay jël ay juriste bitim réew naan leen wax leen ci mandat bi ni mën na ne kii naan dans l'intérêt du peuple moo lay wan ni il a un doute légitime ndax mën na ko def wala mën nag su ko defee mandat bi li koy li ko fii xaar xam na ko mooy li mu dundoon 23 juin mm-hmm. bu yokkul mënul wàññeeku kooku il le sait élément bi ko tënk mooy su ne du ma def mandat son régime s'effondre le jour même parce que ce jour-là moom moo ko waxal boppam du ma tontu. parce que aw autorité naturelle. au-delà de la puissance bi may détenir su ma xasee ba ni damay teg dootuma bokk mandat bu ma waxtee ministre du dégg. su ma santatee euh, euh, répression duñ ma faale su ma nee liquideel ma judiciairement justice day bañ au vu euh, par rapport ak entendement bi nga bi par rapport ak li nga li nga wax yëpp à quoi on peut s'attendre parce que président la république va se prononcer peut-être le le 24 ou le 25 à quoi on peut s'attendre lan lañ mën a xaar lan lañ mën a xaar ci déclaration selon vous mais luñ ci xaar amul ludul parce que jusqu'à présent on n'a pas à attendre daf bu ñuy xaar mu wax. Mm-hmm. dafa mel ni ñun wóoruñu ni constitution bi waxu li mu wax. on n'a rien à attendre de lui on doit même pas le peuple n'a pas à attendre le président Macky Sall quelque déclaration que ce soit concernant le mandat mandat bi dafa leer bis bu ñu bàyyee. mais leer na mais malgré ça. bis bu ñu ko bàyyee mu def teg ay plateformes buy xeex troisième mandat am na jàmm gën troisième mandat donc ça veut dire que leerul ba tey aussi ci askan bi leer na tey boo génnoon di def sondage koo wax danaan la moom moo ko waxal boppam moo ko bind. tey mën na ni moom sa parole n'a pas de valeur mais kooku nit ki bu defee reniment da nga koy bàyyi histoire bis dina ko indil seetu devant ses reniements moo tax ma ni la ñun le peuple sénégalais la mu bañoon 2012 du ko nangu au mois de juin. Mhm. du ko nangu en deux mille vingt trois. te proportion yam ko doon bañee dañuy ragal bi yoon mu ëpp mu ëpp dayo proportion te li li nga xam ne moo engagé sa responsabilité. eu égard ak li ñuy woowee ay Sénégal ceinture de feu pétrole gaz et cetera tey jii le risque juridique au Sénégal c'est le silence ou le ni oui ni non du président Macky dans le pays parce que tey investisseur bu bëgg a ñëw doo ñëw. d'accord gis nga xar ñu ngi koy kii euh, mu ngi koy. kii Omar Faye ngi koy kaasa la moo tax Dakar amul xar koo wax mu ne la du ma jël sama avec la situation politique. du ma jël ay xar di ko dugal ci dëkk bi. parce que wóorul donc il doit respecter la constitution moi demande pas de respecter il doit respecter la constitution bañ a dugal la Sénégal dans un chaos évident parce que nit ñi duñ amul dëkk boo xam ni. troisième candidature jóg na fa muy Guinée muy Côte d'Ivoire muy fenn ta amul on espère que xelam dina dellu si. mu xam ni pouvoir am na ko def na lim doon def ce n'est ni un messie ni un homme providentiel. d'accord sans moom y a 17 millions de sénégalais. dont ñu bëri ñoo ko gën a intelligent gën ko mën a yore réew. def na li muy def mm. bu mu protéger boppam ak i jaral. ñi nga xam ne dañ ko wër te jàpp ni Sénégal c'est un fromage à se partager. d'accord Amadou c'est un gâteau à se partager. mu bañ leen a dégg mu respecter constitution Moussa da ngeen teg plateforme F24 bokk ci bokk ci kuréel googu euh, ngeen di distribuer peut-être ay carton rouge est-ce que euh, euh, par rapport ak li li jot a xew vous avez l'impression que le président de la République a su décrypter vos messages ci yi ngeen di lancer ci seen plateforme yi ak ci seen carton. effectivement parce que ñun au niveau de Gëm sa bopp. actes yi nga xam ne président Macky Sall di posé ñun duñu bett. Parce que très tôt, on s'est inscrit dans une logique de combattre le président Macky Sall, dans sa logique de briguer encore une fois beneen candidature boo xam ni c'est illégal beneen candidature boo xam ni euh, la situation du pays. donc boo gisee climat bi ni mu mel actuellement le climat social tu te compte que le président Macky Sall acte mi posé rek moom moo indi lii te dañ jàpp ni waroon nekk nekk ci situation boo xam ni le président Macky Sall. du fi nekk di sélectionner ñan ñoo war a nekk ci ay candidats wala ñan ñoo war jàll ci élection yi di ñëw donc le président Macky Sall su demee ba France taxaw foofu def déclaration bu voilé boobu ñun teel nañ décrypter message en tout cas ñun bett ñu au niveau de la grande coalition gëm sa bopp. parce que comme ni ñu koy waxee rek le président Bougane waxi Macky Sall doo sa doom nañ koy déglu et on passe à l'acte ci logique boobu la ñu nekk moo